qui n'est pas mon ami mais qui est un Sénégalais mm -hmm. qui est un homme politique qui a fait trois législatures mm -hmm. resté au pouvoir pendant ans Abdou Mbow boobu bu ñëwee tey ci opposition bi il faut qu'il s'oppose de manière républicaine maanaam def ay not joxe xalaatam comme ñoom Thierno Bocoum wax li mu xalaat ci réew mi hmm. question bi tey moom mooy li mu wax am na wala amul question bi du ñoom ndax war nañu wax question bi du ñoom ndax war nañu wax ñoom du question bi ko est-ce que Yoro Dia war na wax ci war na wax ci lii nii joxe xalaatam parce que bi fi ay nit deewee waroon na wax te waxul wala waroon na communiquer ci koy question bi du loolu ndax am na koo xam ne ay magistrat la doon traité de dëlma tey mooy patron magistrat yi kon bu fekkee nañu seet ku nekk li mu wax démb rek du loolu moo am importance. non yara waxul woon de. dafa am ñoo ne dama ne am na ñoo xam ne ku nekk da ngay wax selon sa position dañuy politique. kon léegi yara day politique. no mais c' est évident non. waaw d' accord la question est. lu loolu non je veux dire bi nit ñi di dee ay dictature. ñu ak élection yi. bi nit ñi di nit ñi di dee nit ñi dee. ak dictature loolu ñun war ñu toog ci taabal ji di ko wax bu ñu toogee ci taabal ji leneen la ñu war a wax principalement mooy ñooñu ñu rey ñu ñoom ñëw ci nguur gi ñu war a ñan ñoo leen rey ba pare ñu doog ci waxtaan loolu du ay ay ay Abdou Mbow fan la nekkoon nag ay Alioune Sow fu mu nekkoon nag ak ak Pape Ousmane la question elle est pas là la loolu ay war na wax lu tax Abdou Ndaw Abdou Mbow du wax lu tax Yoro du wax lu tax Thierno Bocoum du wax lu tax Ousmane Sonko du wax lu tax Ami Ndiaye nii bi du wax. yooyu yaay nii di wax. non ñëpp a ngi wax donc loolu waruñu toog ci nit ki sur la personne. Mm-hmm. moom dafa joxe xalaatam. war ñu ne moom est que waroon na wax ndax waxoon na lan la non li ñu war a laaj ci kay mooy Abdou Mbow mii alal mi sax boobu nangu naa ko mm-hmm. na wax gaa yi ñu leeral ñan ñoo rey nit ñi nañu wax Ousmane Sonko ñu leeral ñan ñoo rey nit ñi nañu wax Diomaye so ba Bassirou Diomaye Faye ñu wax ñu ñu leeral ñu ñu dee lan ñan ñoo leen rey ak ci yan condition leen reyee. qu'on dise la vérité aux Sénégalais qu'est-ce qui s'est passé entre 2021 ak 2024 loolu lañu loolu mooy affaire bi pas ay personne Abdou Mbow wala jërëm ça n'a pas d'importance ce qui est important. Ah, mais apparemment vous m'avez mal compris. non j'ai compris j'ai compris est-ce que non non non non xam non xaaral waaw d'accord compris. j'ai dit pendant 15 maa ngi wax bu ma coupé est-ce que coupé naa ko. je veux m'expliquer est-ce que coupé naa ko benn yoon. du tout coupé wala benn yoon yaa ngi coupé ñaari yoon. non dama ne ma dire de donner. loolu yu bëri d'accord ci dictature sénégalais parle d'état de droit et de restriction de liberté alors que sous leur gouvernance pendant douze ans dama ne ah. nga man man xam nga tey jii c'est pas ton ami man c'est mon ami a dama ne dama ne dama ne même buñ dama choisir président bu bees mm-hmm. tey jii nii mosu dégguleen ma ba léegi ma wax ci waxu ba euh, Cheikhouna Keita commissaire Keita ci benn de benn affaire bu ndaw bu mu wax loolu. ñu def ko ci mandat de dépôt kenn waxu ci yéen. mais man loolu du priorité bi tey jii nii pour man. buñ ci naree waxtaan sujet bi. dëgg ma ne la man lu ma ne taxawu leen ngeen ne Jomaay li nga doon bañ Ousmane Sonko li nga doon bañ commissaire Kayta li mu wax am na ñu wax pire Bassirou Diomaye Faye ci nii. yow toogoo fi gën a Jomaay. nekk na fi am lu mu wax ci magistrat yi ñu tëj ko yaa ko wax léegi léegi. waaw léegi ku wax la tëj ok. donc c'est pareil. non il faut bi ñuy téye jomaay ci loolu. bi ñuy téye jomaay ci loolu la liberté dafa am responsabilité bi ñuy téye jomaay ci loolu. li ma waxoon dem leen ngeen seetiwaat ko ca wal fajri mbind boobu nit ki bind warul mën a tax ñu tëj ko autant de temps c'est injuste de la part du régime d'alors ñu ne ma lan moo tax nga wax loolu surpris parce que les gens dañuy yaakaar ni boo nekk boo kii rek di wax am na war a xalaatee. alors que moi je suis un homme imprévisible parce que lépp mi ngi dépendre ci sujet du moment lan moo xew ci sujet précis bi lan la ciy wax lan laa leen tontu ma ne leen mais waa ji mun na sax mer parce que xaritam la ñu jàpp grand homme la ñu jàpp tëj ko noonu xol bi jeex mu toog peut-être il a perdu le contrôle il a dû des il a dû dire des mots de trop c'est exactement la même réaction que j'ai eu ak Birame Souleye bi mu waxee waxam yooyu est-ce que Birame Souleye tëj nañ ko Birame Souleye li mu wax moo gën a garaaw foofu est-ce que Macky tëj na ko yow loolu doo wax Birame Souleye li muy wax Macky Sall dëmb la ba ci suba sa déglu ma il était obligé de s'excuser parce que déglu ma rek non parce que il s'est il était obligé de s'excuser le lendemain mais ci diggante boobu excuse yi. mais Aliou quel est le non non non non parce que da nga ne da nga ne. quel parce que yow yaa fi. wala yow da nga ñëw pour tontu ma wala. tu as réponse wala man li mu demee noonu. non si parce que li ma wax sama xalaat la. dama ne man dama ne am na yoo xam ne. man damay dictature leen ci lakatal Sénégalais yi ci changer man loolu laa wax waaw mais tu peux pas venir yow te te programme waaw ça n'a la dissolution de l'Assemblée parce man maa la bëgg wax ni man xam nga Sénégal dañuy déglu ku nekk na nga wax après ñu bàyyi Sénégalais yi mhm. ñoo xam ñi farak ñi am xel ak ñi amul xel ak ñi nga xam ne seen yoon nekku ci ak ñi nga xam sama yoon nekku ci xam la mu am importance mooy ëllëg lan mooy xew man jox ba Bassirou man maa fàttali ni man biñ ko téye j'ai essayé d'expliquer que ni loolu mun na dal nit ku nekk. bi muy bind loolu. que waruñu ko woon téye autant de temps c'est pas normal et c'est injuste. j'ai eu la même réaction le même commentaire sauf que j'en ai pas encore parlé par rapport ak commissaire Keita dafa amoon xuloo benn béréb. yàgg ko tekki téye ko yóbbu ko mandat de dépôt dépôt pour humilier ko six mois kenn waxu ci kenn Sénégal. kenn waxu ci. mais diffusion de fausses nouvelles la def. Bassirou Dioum euh, kii euh, bi euh, Birame Souleye Diop. Mm. wax li muy wax Birame Souleye Diop. Mm. wax li muy ca suba sa mu yeewu suba teel xam ni li mu wax nii xol man gëm naa ni xolam a jeexoon moo tax mu wax ko. Mm. le lendemain qu'est-ce qui s'est passé moom ci boppam moo ci rendre compte moom ba toog xëj na sax Bassirou Diomaye Faye moom moom Birame Souleye moom moo rendre compte ni kii la mu dem jéggalu xëj na sax Birame Bassirou Diomaye Faye bi mu nekkee ci kaso bi regretté na li mu defoon. parce que tey jii nii moom mooy patron wu ñooñu magistrat yooyu certains magistrats yooyu mu doon mu doon tam dëmm ñoom ñëpp tey mooy seen patron kon yooyu jarul di wax li am solo mooy li nga xamoon dafa ay erreur warul mën a tax ñenn ñi xam ne dañu bokkoon ci ñi def erreur yooyu dañ leen war a continuer naan leen waruñu wax man loolu laa nanguwul muy muy muy Abdou Mbow muy Thierno Bocoum muy keneen ak keneen yoro jàpp am nañu droit joxe seen xalaat am na ñoo xam ne wax nañ fi lu gën a garaaw loolu tey yegg si nañ ci nguur gi fal nañ leen am na yoo xam ne jéggale daf ci am solo. li nga wax moo tax sama xel nekk ci ci ci commissaire Keita li nga wax ñële war ñu wax ak li ñu leen doon def ak ñu leen doon jàpp ku saaga ñu tëj la li ñu war a wax xam nga mooy lan mooy entre 2021 ak 2024 ana dëgg bi loolu waxal loolu Abdou Mbow d'accord nekk Abdou Mbow waxal boo waxee lii ba pare da ngay wax ni deux ak deux mille vingt et un ak deux mille vingt. waxal kon tu es le porte parole de Abdou Mbow. non déedéet non déedéet. je veux savoir tu es le porte parole de Abdou Mbow. bàyyi ma léegi rek. wala yow non je veux savoir est ce que tu es le porte parole de Abdou Mbow. wala xam nga xam nga xam nga yow xam nga ne Abdou Mbow c'est pas non man xam naa Abdou Mbow ba muy nekk ci Mbaye Jacques Diop PPC. non bàyyi ko nekk PDS jóge fa ànd ak Macky. wala wala mi xam naa Abdou Mbow. mais man sama xalaat laa am échange la sànq. sama xalaat laa am li nga laaj. mais tontu si li nga laaj. d'accord Cheikh Omar bàyyi ko mu daaneel s'il vous plaît bàyyi ko mu daaneel. daaneel. ñoom ñoo def man waxuma loolu. que yow yaa def opposition parce que da nga ne ñoom man waxuma loolu ma amul problème mais dama ne man man ok d'accord mais dama ne Abdou moom war naa wax. Yoro Dia war naa wax Amy Ndiaye ñii bi war naa wax kenn ku nekk ci Pastef aussi ki euh, que j'aime bien le séeréer là euh, xaw ma lan kii l'enseignant là euh, kooku war naa wax ak keneen ak keneen ñoo xam ne war nañu wax fii ku mu bëgg a wax da war a wax sa xalaat comme Abdou Mbow ni mu ko waxee li xam nga lan mooy question bi moom mooy fu ñu toll nii laa lay wax nii hmm. mais mais article 42 j'aime bien parce que il l'a cité encore mais article 42 li mu wax waaw ok d'accord ko fàtte moom Adji Sarr Sène bi ne moom waa ji dafa war a dem def déclaration politique générale est-ce que est-ce que Bassirou Diomaye Faye foofu surveillé na est-ce foofu nekk na fa de la constitution mais loolu doo si wax. mais amul délai quand même. non non waxuñu délai bi dañu ne dañu ne un premier ministre bu ñu ko falee. xanaa premier ministre def ñaari fan. xanaa mu def ñaari fan. amul délai mais constitution dafa ne daf ko obligé pour mu def loolu parce que une déclaration pour ñu temps pour ñu may ko temps pour mu organiser man d' naa mu bañ a pare ne ne gars man pare bu ma. wala aw projet wala aw ma ceci lii moo tax mënu ma ko kii wala bëgguma jàkkaarloog ñi mu jéem a wax sax wax dëgg bi mais règlement intérieur la ñu au départ indee comme prétexte au départ loolu ngeen comme loolu la commencé. règlement intérieur la waxoon mooy problème bi rek léegi nag à la fin au finish on a bien compris que tiré son épingle du jeu comme il l'a dit Cheikh Omar il a raison il s'est battu politiquement en utilisant son ses prérogatives à lui présidentielles et il s'est battu jusqu'à au bout de presque six mois pour tirer son épingle du jeu il a raison et c'est tout à fait logique parce que dafa am yoo xam ne il en a profité parce que moom mooy président de la république ay prérogatives am la il en a profité ba pousse ko ne le 13 après mu def mbir mi entre guillemets mais ça aurait pu être beaucoup plus élégant bu fekkoon ni sax def nañu déclaration de politique générale bi deux mois après après bu defee deux ans yi tey ñu dissoudre assemblée nationale man d' accord naa parce que man j'ai toujours je fais partie des premiers à dire à Bassirou Diomaye Faye dissolvez l' assemblée nationale man yàgg naa ko wax yàgg naa ko wax te raison yi expliqué woon naa ko ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on est en train mais man bokk naa si ko njëkk wax il y a trois mois je le disais bi ma koy wax fii kenn ñeme ko wax parce que kenn xamul woon ndax gars yi dañ woon sax foofu dama si yokk leneen dama ko ne sax je pense que yow comme am ngeen majorité euh, opinion bi li ngeen war a def sax yow Bassirou Diomaye Faye te li gën mooy yow nga nga démissionné comme ça ngeen couplé élection présidentielle yi ah, parce que vous aurez 92 jours pour les deux comme ça ngeen couplé élection présidentielle élection législative yi bu la neexee sax ngeen def ci élection locale yi comme ça lépp nekk doo en même chose nga xam ne léegi bés bu élection amee lépp la ñuy defandoo en même yow Bassirou Diomaye Faye président la République euh, premier ministre euh, Ousmane pratiquement moom mooy gouverner réew mi te loolu du man kese maa ko wax bi ma koy wax ñoom Alioune Tine ko Alioune ñoom après lañ ko wax ak ñeneen ak ñeneen mais ma ne ko démissionne nga am 90 jours non dama ne chef de gouvernement laa wax ma ne kooku non kii chef de gouvernement laa wax c'est le premier ministre et le premier ministre il ne non il ne définit pas la politique de la nation c'est pas au premier ministre de dire que ni président dina wax te dinañ dissoudre assemblée nationale c'est pas au premier ministre de le dire dans une république qui est comme le Sénégal premier ministre bu ñëwee wax loolu sa veut dire que ni am na ay prérogatives yoo xam ne jël na ko te moomu ko léegi nag pourquoi pas mën na ko jël waaye pour mu jël ko il faut que ñu tëgg ay élection ba prérogative yooyu bés bu nekkee président de la république mu am ko bu boobaa kenn du ñemee wax nañu waxante dëgg te yàlla tax man loolu moo tax ma doon wax Bassirou Diomaye Faye il faut que nga démissionné yow bu ñu kese ci dissoudre assemblée nationale il faut que nga dissou il faut nga démissionné ñu dissoudre assemblée nationale ba pare nga démissionné boo leen ngeen boole ñaari élection la bonne responsabilité parce que bu nekkee premier ministre sax xëy na ci lépp moom am na yoo xam ne sax du ko ñeme def am na yoo xam ne du ko ñemee imposer Ousmane Sonko parce que lii ko Ousmane Sonko di imposer daf ko koy imposer pour d' autres pour d' autres ñoom ñoo xam mais en tout cas leer na ci bëtu Sénégalais yi nii Ousmane Sonko moom mooy gouverneur réew mi alors que kii gouverne réew mi du kenn warul nekk kenn ku dul le la république en tirer son épingle du jeu je le répète. Hmm. il a raison. waaye nag et ils sont intelligents. et je suis tout à fait d'accord avec toi mais nag nañu waxante dëgg bàyyi leen xel te wax leen ma ci article bi est que conforme na ak article quarante deux bi nga ne na président mooy garant de la bonne marche et du bon fonctionnement des institutions. pourquoi mu bàyyi article cinquante cinq bi waxul loolu. non quarante dafa ne le président. résumé laa la defal gardien de la constitution. non ga mooy gardien de la constitution euh, ah, loolu la wax. waaw non de fois. loolu hmm. combien de fois laa ko jàng il y a vingt ans. ok loolu du problème xam nga lan laa bëgg wax man dama ne loolu li may wax nii ak loolu benn la garant de la constitution moom mooy garant du bon fonctionnement des institutions. tout mais garaawul ba tey mun naa arrêté. mais rek pour terminer. non parce que problème non mun naa arrêté sax pour ñu échanger kon échanger parce que man j'aime beaucoup ñuy échanger. mais dama ne dama wax rek benn mbir. mooy article 55 dafa ne un président euh, le premier ministre. il mm. fait ça dañ ko obligé pour mu def déclaration politique générale. pourtant Bassirou Diomaye Faye def ko sept pendant cinq mois. pourquoi pourquoi moom garant foofu nekk fa garant pour garantir ñu le bon fonctionnement des institutions. d' loolu loolu sujet hmm. pourquoi ba loolu tey ku jàkka man su ma jàkkaarloo la ba yow lu tax waa ji yow yow da nga ne da waat da nga respecté constitution bi et la constitution pourquoi nga ak 55 nga bàyyi Ousmane Sonko demul def ko parce que même bu ko doon def tey sax le au mois de mai mu ko ba pare après tey parce que man dama bëggoon dissoudre ko a fait du forcing il Politiquement, c'est normal. Mais c'est hyper inélégant et ce n'est pas bon. Et il n'a pas fait respecter la constitution. Ousmane Sonko euh, euh, euh, président de la République respectewul constitution bi faire respectewul constitution bi parce que bu ko faire respecter woon dina ne Ousmane Sonko trouve une solution tu vas y aller tu vas te battre avec eux xuloo leen benn 24 heures de 8 heures à 2 heures du matin après man t'inquiète pas le lendemain yoon na ma léegi ne fait pas de de politique générale. Cheikh Oumar mu des yeneen défi wax nga ko sànq te président de la wax.